Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak Zahra Iyane Thiam nekk candidate ca mairie bu Sicap Liberté ñoo leen di may seen revue de presse dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéen a ñu xëyandoo yéen a gi di Rewmi Quotidien xëy seex waxtaan wu yaatu ak artiste bi di Tiken Jah Fakoly di panafricain boo xam ne bëgg na lool Afrique te saa su nekk ma ngi ciy waxalaatam ci journal bi nee na jamono ji ma ngi studio ngir nag génn album boo xam ne fukki titre la ak ñaara waaye nag ay la ñuy doon daat nay wax ne Afrique jamono ji maanaam continent xam ne dafa riche waaye nag ñi nga xam ñëw ndóol te loolee wurta mën a nekk Afrique nag a a di réew mi quotidien daan ne Afrique tant que ñoo ngi divisé wu maanaam di di xaajali ko loolee du ndamu Afrique dellu si gi nga ca diwaanu Côte d'Ivoire loolee tamit daan na ciy bég lool ndax nee na loolee jàmmi Côte d'Ivoire la wax na li nga xam ne moom lay xaar ci Macky Sall ci Union africaine ñetteelu mandat ci dënd Afrique nee nekk na mbir moo xam ne maanaam ñi nga xam ne ñooy société civile bi ak artistes yi nga xam ne dañoo engagé engagé ñoo si war a jóg ngir nag lijjanti li nga xam ne mooy mbir moomee jéem a trouver ndax lu jëm ci wàllum ñetteelu mandat bi gis nañ ne ñi nga xam ne ñoo ciy faatu ci déndu Afrique daan nay bëri lool yéene kaay gi de Le Quotidien xëy dañu xibaar naan ñu lu jëm ci coronavirus beek ñàkk yi ci Sénégal bëri na ay sénégalais yoo xam ne dañoo lànk kandaare bañ a ñàkk lu toll ci ñeenti téeméeri junni ci ay vaccin ci ay dose yoo xam ne dem nañu ba périmé sànni nañu leen ca poubelle ba jamono ji tembe ci réew mi lu toll ci juróomi million ci ay vaccin ñoo ngi Sénégal waaye kenn ñëkkoowu leen te boo muytuwulee maanaam ci tuuri ko la ñu jëm bu Sénégal ñoom nee nañu dootuñu jëndati ay ñàkk ndax askan wi ñoo ñëkk wala yéenekaay gi di L'As bàyyi mbir moomee wax ci Mamadou Camara mi nga xam ne mooy candidat ànd nawle ca diwaanu Fatick nee na jamono ji dina dem ci diwaanu OFNAC ndax gis na ne Matar Ba mi nga xam ne mooy candidat Benno Bokk Yaakaar ci diwaanu Fatick xaalis bi nga xam ne moom la yore bëri na genn xeetu bëri goo xam ne ak ni mu koy pasar pasare mënuñoo ñàkk dem ca OFNAC ngir daal di koy gi di Les Échos ñu fekk fa Mansour Faye candidat Benno Bokk Yaakaar ca diwaanu Saint-Louis nee na élection locale yi bu ci góor a koy bàyyee te Mary Teuw Niane dina xam ne du ma moroomam te yi jàllee dama ko bëgg yóbbu retraite su ko defee ma ko ak si jaata ak kurus yéene kaay gi de xëy dañu xibaar naan ñu Barthélemy Diaz mi nga xam ne mooy candidat yeeyu askan wi ci ville bu Ndakaaru niki démb yëngal na université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ba tey ci journal bi ñu fekk fa Diouf Sarr mi nga xam ne mooy candidat coalition Benno Bokk Yaakaar ci ville bu Ndakaaru daan nay wax ne bu gagné budget ville bu Ndakaaru ko yóbbu ba téeméeri milliards yéene kaay gi di leen fa ñu xëy fekk fa Barthélemy Diaz nee bu ñu waxante dëgg askanu ndakaaru ñoo doyal sëkk ci Macky Sall ak ñi mu àndala yéenekaay gi di leen fa ñu xëy fekk fa Mambay Niang moom nag nee na du mos a nekk ci ginnaaw Diouf Sarr maanaam rangé wu ci ginnaawam loolee kenn du ko gisa ndax nee na xalaatu ko te Diouf Sarr yor na mairie bu Yoff lu toll si juróom-ñaari at amul benn bilan boo xam ne Diouf Sarr mën na leen ko wax bu passé rond-point bi nga xam ne moom lay ndamoo di ko bàkkoo daan nay wax ne Diouf Sarr ñi ko xam ñëpp xam nañ ne mus supporté li nga xam ne mooy ab combat Macky Sall Assimi Koïta bi di Le Quotidien nee na génn na waa Mali niki démb ngir nag ñu ñaawlu bu baax a baax maanaam daan yi nga xam ne CEDEAO daan nañ leen teg yéen kaay gi du wax ci match bi doon dox diggante Sénégal ak Guinée Conakry journal bi nee bu ñu waxantee dëgg problème am na jafe-jafe am na ci équipe nationale bu Sénégal ndax football bi nga ne moom la ñu gis ni ki démb demul ci nga dikkul mbay laara football bi dara baaxu si sëful xoram sëful yàpp maanaam mbir mi géy na loola yéen kaay gi di Les Échos nay wax ne Sénégal dafa rëcc ci Guinée jàppale daan nay wax ne ñii nga xam ne ñoo équipe nationale bu Sénégal niki démb wane wu ñu xadaara wane wu ñu man-man waaye nag ak yëfus la ñu wane yéene kaay gi du source nee na lii c'est honte nee na lii gàcce la équipe nationale bi niki démb ku xool li ñu doon football da ngay mel ni ñoo xam ne dañuy jàng football yéene kaay gi di Dakar Times nee na bu ñu waxante dëgg Aliou Cissé mi nga xam ne mooy entraîneur bu équipe nationale bu Sénégal moom ci boppam mooy tâtonné Aliou Cissé mooy làmbato jamono ji xamul fan lay teg tànkam Aliou Cissé xamul lan lay def journal bi nee na adversaire équipe nationale bu Sénégal